bismillahi arrahmani irrahim nabda'u biidnillahi tabaraka wa taala darsa arraabica min matni kitaabi al-arbaciina an-nawawiya ñeenteelu xadis qaala wa an abi abdirrahmaani jëlee nañ ci bàyyi abdirrahmaan kunyala turam mooy abdillahi bini mas'udin radiyallahu tabaraka wa taala an bokk na ci saxaaba yi njëkk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tuutee ko njëkk tuub mu doon nag nit ku tuuti ci jëmm waaye fitam ëpp na fitu àdduna yëpp soo leen boole keroog bi suuratu rahmaan wàccee hmm. moom moo dem jàng ko ci waa Makka hmm. yu dóor yu metti hmm. radiallahu tabaraka wa anhu moo njëkk a biral alquran ci biir ñooñ Makka gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala xaddathana rasulullahi yonentu sallallahu alayhi wa sallam nettali nañu wa huwa moom yonentukat as-saadiqu mooy aji dëggu ji dëgg-dëgg almasduqu ki nga xam ni mooy kuñ dëggal koo xam ne lu mu wax dëgg la te lu mu wax ñu dëggal ko kooku yonentu rekk la sallallahu alayhi wa sallam seydna malik ibnu anasin daan na wax ne borom wax ju ne hmm. danañ jël lëf ci waxam hmm. delloo lëf ci waxam hmm. ba mu des borom xabru bi sallallahu wa sallam ki nga xam ne lu wax dëgg la te lu wax dees koo war a dëggal yonentu rekk la sallallahu alayhi wa sallam eh, lu tax nag mu indi jumla ji ndax li mu war a xibaar si dafa aju ci xëybu comme dafa aju ci xëy bu nag hmm. ku ko xam rek hmm. te lu wax di dëgg moo ko war a xabaare hmm. ku ko déggit waroo ca am sikk sàkk ndax ki ko wax tax moom la yàlla yëral xëy bu aalimul xaybi falaa yudhiru ala xaybihi ahadan illa man irtadee illa man irtadee min rasul te yonent nag mooy ki yàlla gën a gërëm ci yonent yi nee na ahadakum naka kenn ci yéen yujmau danañ dajale xalquhu ak bindam fii batni ummihi ci biit ndeyam arbaina yowman ñeen fukki fan yoo xam ne nutfatan toqantalu mëniyu lay do bim ne dajale nag ñu xam ne toqantelu mani yu góor ak bu jigéen ndax euh, doomu aadama ndoxam góor ak ndoxam jigéen ñoo koy jur moo tax yàlla ne inna na li insaana min nutfatin am shaajin mooy ay muxtalitatin ñaari ndox yu dajee jaxasoo te yonentu sallallahu alayhi wa sallam ko laaje ndax jigéen su gisee ndox dana sangu mu ne ah kay day umu salamata ne ko ah kon jigéen dana di gis ndox mm. mu ne ko ah lu tax doom di niru ndey bon inna xalaqna al insana min nutfatin amshaj mm-hmm. ak yaxruju min bayni sulbi mm-hmm. ah mm-hmm. wa taraibi ay sulbi rajuli wa taraibi almarati yàlla mu ngi gën ci euh, loolu mu bindee nit euh, fal yanzur il insaanu ba mu gëñee pare na loo xool doomu aadama doomu aadama na xool ci luñ ko bind falyanzur il insaanu mimma xuliq xuliqa min maa'in daafiqin yaxruju min bayni sulbi mooy sulbi rajuli wa taraa'ibil mar'ati min bayni sulbi wa taraa'ibi yujma'u nu mu ko waxee inna ahadakum naka kenn ci yéen yujma'u dañ danañ dajale xalquhu ak bindam fi batni ummihi ci biir ndeyam arbaina yowman ñeen fukki bés ci lañ lañuy dajale ci biir ndeyam nutfatan mu dib lumb mu dib euh, toqante lu ma niyu ñeen fukki fan yu njëkk yi thumma gannaaw ga yakunu mu nekk alaqatan di euh, lumb deret lu mbub deret misla zalika kem talaayu mooy boo ca tegee yeneen ñeent fukki fan ñeent fukki fan yu njëkk yi ci la bébé bi wala doomu aadama bi di formé woo nekk rekk di lumbu deret man yum góor mu jaxasoog man yum jigéen ci ñeent fukki fan ya ca topp ci la man yu mi di soppeeku nag mhm. euh, dégg nga mhm. nekk lumbu mhm. ñeent fukki fan yu njëkk yi toqantelu man yu rekk la man yum góor ak man yum jigéen ñeent fukki fan yi ca topp ci lay soppeeku moom man yu nag di deret ba mu soppeekoo di deret nag loolu la ñuy tuddi al lumbub deret ci ñeent fukki yi ci topp muy juróom ñetti fukki fan summa gannaaw ga yekkoonu mu nekk mudghatan dib lanc misla zalika kem loolu buñ ca tegee yeneen ñeent fukki fan muy téeméeri fan ak ñaar fukk ci lay xawrul mudgha di ñëwee nag boo ko gisee mu mel ni lanc ab sàqambi doomu aadama bu tolloo foofu boo ko gisee day mel ni Euh, li ngay yëy noonu sa bëñ yi marqué ci mm-hmm. jamono jooju nag ci lañ koy bindal ay cëram mm-hmm. boo ko gisee xam ne lii am mbéemu la mm-hmm. téeméeri fan ak ñaar fukki fan suma gannaaw ga nag yursalu lañu yebal almalaku malaaka ci la sama borom nag li yebal malaaka mi fa yanfuxu mu wal fii ci moom hmm. ar ruuxu ar ruuxa gi nga xam ne mooy tax mu mën a yëngatu nag ruuxu ruuxul xayaati hmm. gi nga xam ne doomu aadama lottu na hmm. ci xam dëgg-dëggam wa yasaluunaka ani ruuxi quli ruuxu min amri rabbi mbóot la ci mbóoti yàlla wa maa utitum min al-ilmi illaa qaliila doomu aadama bi ruux bu nee ci moom mu dund bu nekkatut ci moom muy médd te moom min mim ne ci moom mënu laa wax ne ci moom moo tax ki bëgg wutal yàlla bërëb mbaa jamono yàlla jox na ko misaal ci boppam mm-hmm. ruux gi nga nekk mm-hmm. ci boppam mënoo xam barabam ma mm-hmm. kon nooy wutale yàlla mi barabal barab mm-hmm. bu tolloo foofu daal mm. ci la yàlla yebal malaaka mi ca nam ko soobee mm-hmm. mu wal ruux gi bu ko defee mbéemu ma nekk di dundat nag léegi feeg ruugaa ngi ci nit ki di dund ruu nag su génnee rek nit dee deegu ndaw mbaa deegu mag deegu ndaw mooy nelaw allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha aa wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati qadaa alayha al mawta wa yursilu luxre ila ajalin musamma wa huwa alladi yatawaffaakum billeyli wa yaclamu maa jaraxtum binnahaar mm-hmm. thumma yabcathukum fi kon moo ñuy rey bu guddee mm-hmm. loolu la ñuy tuddee deegu ndaw mm-hmm. waaye bu dee dëgg-dëgg dikkee nag tawaffathu rusuluna ay rusulul malaikati rusulul mawti wala malaikatul mawti qul yatawaffakum malakul mawti alladi wukkila bikum summa mm-hmm. yursalul malaku gannaaw ñeent fukki fani nutfatu ñeent fukki fani mudugatu ñu yebal malaaka mi nag fa yanfuxu mu wal fii ci moom ar ruuxa ruuxu gi tax mu dund kon doomu aadama ci atwaar yooyu la ko yàlla bindee yàlla wax na ci alquran ne wa laqad xalaqna al insaana ñun de ñoo bindu doomu aadama min sulaalatin min tin mm. kooku aadama la alayhi salaam mm. ci moom la yàlla bind mm. bind moom la yàlla bindee ban thumma jaalnaahu nutfatan fi qararin makin mm-hmm. mooy doomu aadama yi mm-hmm. mooy nutfatu googu mm-hmm. yonentu tudd ne yàlla nga koy def doomu aadama ci ñeen fukki fan yu njëkk yi summa xalaqna nutfata alaqatan mu ne ñu topp nag ñu bind nutfatu bi toqante lu ma ni alaqatan muy lumbu deret fa xalaq naa ñu bind al alaqata lumbu deret ba mudgatan mu di dogitu de dogitu yàpp ab luñ ab lanc ab saqam yi fa xalaq naa ñu bind al mudgata dogitu yàpp wa idaaman mu di yax fa kasaw na al idaama ñu woddee yax ya laxman yàpp boobaa nag boobaa amee booba la mbiimut am summa anshanaahu xalqan axara nag mooy ruux summa gannaaw ga nag anshanaahu ñu sos ko xalqan muy mbindeef axara meneen fa tabaraka allahu axsanal xaaliqiin waaw wa laqad xalaqna al insana min sulalatin min tin aadama la summa jacalnaahu nutfatan fi qararin makin mooy toqante lu yu mu góor mu jigéen mm. ñoo nutfatin am shaati mm. summa xalaq na nutfata alaqatan mm. mu nekk di deret fa xalaq na alaqata mu dib dagitu yàpp fa xalaq na almudgata ñu bind dogitu yàpp wa idaaman ay yax yax i dikk yàpp yu wër yax yi yàlla mi mu wol ca atwaar yooyu la yàlla di wax ne waqad xalaqakum ah atwaara ci suratu nuux maa lakum laa tarjuuna lillahi waqaaran waqad xalaqakum atwaara atwaar yi mooy atwaar yi ñëw ci janin bi ci biir ndeyam tawru nutfati tawru alaqati tawru mudgati tawru alciwaami wallaxmi thumma yakunu insaanan loolu hada xalqul insaan bokk na ci kiimaani yàlla yi gën a mag mm-hmm. ni yàlla bindee doomu aadama moo tax mu koy répété bés bu set mm-hmm. ngir doomu aadama di ci bàyyi xel mm-hmm. foo jàng ci alxuraan rek mu ngi fàttali ni ñu bindee yaxluqukum fi butuni ummahatikum xalqan min baadi xalq fii xulumatin thalath juróom eh, naka la tudde ñetti lëndëm yooyu yàlla rek fa mën a def lañ fa def batni lëndëmu biir wëlmatu rahimi ak lëndëmu ruxumu ndey ak zulmatul machimati mbuus googu doomu aadama di lu ca topp xa mu ne ah wa yu'maru wa ñu digal ko nag moom malaaka mi bi arbai kalimatin ci bind ay bi kat bi arbai kalimatin ci bind ñeenti kaddu bind goo xam ne nag bindu gu spécial la ndax yëpp kat bindoon nañ ko kitaabatan ammatan ca lawxul mahfuz waaye bind bi kitaaba xaasa la ñeel bépp mbéemut bu tolloo ci Euh, xaalatu boobu nga xam ne wal nañ ca ruux ba pare moo ñeenti baat yan lañuy ñuy wax malaaka mi mu bind bi kat bi rizqihi ci bind wërsëgam wa ajalihi ak digam wa amalihi ak jëfam wa saqiyun moo ndax aji texee di la aw saidun wala kuy texe la kenn ci doomu aadama yi mënta am ci wërsëg lu ko yàlla bindalut yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na ruuxul qudsi wal ci sama naf ci sama rawxu ne doomu aadama du dee ludut mu jot wërsëgam ba mu jeex kon nag na ngeen ragal yàlla te rafetaluk sàkku boroom ashalul masalik mu ne war rizqu xaqan ma bihi yuntafau xalaalu naw makruhu naw mumtaniu ki sàcc dafa yàkkamti waaye bu xaaroon dana jot ci wërsëgam ci anam wu dagan ba mu yàkkamtee nag jot na ca de waaye am na ca bàkkaar doomu aadama du lekk lu dul wërsëgam ah wa fi samaai rizqukum wa ma tuwaadun fa wa rabbi samaai wal ard yàlla su gëñul sax li wax dëgg la tax waaye bu gëñ mu mu gëñ far te doomu aadama yi ba léegi mel ñi gëmuñ ko fa wa rabbi samaai wal ard gëñ naa ci borom asamaan ak suuf innahu ne li ma leen wax ne eh, seen wërsëg ci sama loxo la xaqut mooy dëgg misla ma annakum tantiqun kem seenu tudd rek bi kat bi rizqihi wa ajalihi ak digam lim war a dund fukki at la ñaar fukki at la téeméeri at la keroog boobaa lañ koy bind kitaabatan xaasatan bu dig ba dikkee laa yastaaxiruuna saatan wa amalihi yaag jëfam lim war a jëf yëpp yiw ak xayak ma nga ca bind googa malaaka ma di bind bu ko defee nag li yonentu wax ne jëf leen fa kullun muyassarun li ma xuliqa la ndax dafay texe mbaa dafay texee di ma nga ca loolu ñuy tuddee euh, xalibaayu dogal gi daw ci jaamu yàlla yi dogal ab atte dogal ak nattale yàlla ku nekk nattale na sa mbir ndem texee la ndem texee di la jaam bi nag nekk sabab boo xam ne <clears throat> danay jëf ci sabab luy wane ndax kuy texee la wala kuy texee di su sabab loo def yiw yàlla jàppandalal ko yiw waaye su defee xayit yàlla bàyyi ko xaywa fa amma man actaa wattaqa wa saddaqa bilxusna fa sanuyassiruhu lil yusra dogal bi moom ci yàlla la jóge waaye sabab bi ci jaam la jóge wa amma man mumbaxila wastaxna wa kadaba bilxusna fa sanuyassiruhu lil usra bu defee kon jàmbi nekk di sabab ci texee dem ak ci texeem kem talaayu jëfam ak jubloom yàlla nag nattale na jaam bi xam na xam nga yàlla xam na li ñëwagut firiwul ne def la cay bamaxkat waaw ndegam yaa mën a gis rekk ak gone rek nga ne kii dana nekk boroom xam-xam ñëpp gëm la ngir ak sa xibratu gi nga am ci nit rawatina yàlla mi nga xam ne moom moo bind alaa yaalamu man xalaqa wa huwa latifu su ko defee jamu mën a am diggante xam giñ xam ne jëf ci dogalu yàlla la waaye ci jëfi jaam bi la jaam bi sabab la ndax yàlla jox na ko xel kim xeeñ xel mbaa ki fàtte kooku toggut ko waaw dara du du jëfam waaye ki nga xam ne nag am na xel gént na mat na mu këllëf kooku sabab yi nga xam ne dafay gongeekoo ci moom dañ ko koy dañ dañ dañ koy xisaab ci yooyee waaye sabab yi it du génn dogal bu mag ba moo tax doomu aadama bi war a ci boppam wara a bàyyi xel yàlla it wara am yaakaar yi tamit du tiit ba naago waaye du yaakaar it ba bàyyee ko toujours ma nga bàyyi xel dogalub yàlla bu mag bi mu teg ca nag fa walladi nafsi bi yadihi lii nag mën naa am yonentoo ko wax sallallahu alayhi wa te wax ji mën naa wane loolu mën naa am it ki solo xadis ji muy Seydina Abdullah ibn Mas'ud moo ko wax loolu boo amee ci xadiis moom la ñuy tuddee almudraju luñ taxañ léeg nga gis xadis ci waxin wi di nga yëg ne wax ji duwul ne yonentu bee ko wax dégg nga mu ngi mel ni seyduna abdullah seyduna abu hurayrata ba muy jàngale njàpp ne eh, yonentu sallallahu alayhi wax na nangam ci guddal xurratu muy eh, booy jàpp fexe ba eh, loxo raxas loxo yi ba mu romb conc yu tuuti raxas tànk yi tamit ba mu romb doojoor yi tuuti li ñu tuddee itaalutul xurrati ndax yonent nee na mi ngi xàmmee xeetam yi xurran mm-hmm. euh, muhajjalina bu yowmal qiyaama seen cëri njàpp yi dañuy weex tàll mm-hmm. ba abu abu hurayrata waxee loolu pare nag daal di man istataa minkum an yutila xurratahu falyafal mm-hmm. ku mën ci yéen guddalub xurram na ko def ñu ne loolu kat mudraj la ci waxi yonent Seydina Abu Hurayrata moom moo ko commenté mm-hmm. lii it am na ñu ne ci boroom xam-xam yi dégg nga mm-hmm. Abdullah ibn Mas'ud moo wax lii commenté ko pour leeralal ñu li yonent bi bëgg a wax mm-hmm. wala yonent bi ci boppam sax moo ko wax fa walladi maa ngi wat ci buur bi nga xam ne nafsi sama loxo bi yëddi nafsi sama bakkan bi di ci loxoom la nekk bu yonantu bu waxee bu waatut sax dëgg la sàkkaa su waatee abdullah ibnu masud su waxee ma ngay jëlee ca mishkaatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam kenn gënu koo xam njubal yonantu bi kenn gënu koo xam alquran moom la yonantu waxoon ne mu ne ko moo jàngal la te ci yow la wàcc mu ne ko damaa bëgg dégg keneen di ko jàng mu dal suratu nisa di tari ba mu yeggee ci fa kayfa ida jinaa min kulli ummatin bi shahidin wa jinaa bika ala haulaai shahida yenentu mënta teewti boppam jooy ba sikkimam bi tooy xepp mu ne ko xasbuka xasbuka nopp baax na kookoy abdullah ibnu masud mu ne fa walladi gëj naa ci buur bi nga xam ne nafsi fa walladi laa ilaha gayruhu dégg nga fa walladi gëñ naa ci buur bi nga xam ne laa ilaha déet buur bu yeewee jaamu jaamu ga am njëriñ ñàkk ga jaamu di lor xay kudut moom inna ahadakum naka kenn ci yéen inna ahadakum naka kenn ci yéen ana mooti dana jëf bi amali ahlil jannati jëfi waa aljanna xataa maa yakunu ba du dox bayna oo digganteem wa bayna haaga aljanna illa ziraaun lu ab xasabu fa yasbiqu jiitu alayhi ci moom alkitaabu téeréb dogal ba fa yacmalu mu jëf bi amali ahli naari jëfi waa safara fa yadxuluha mu tàbbi ko yàlla nañ ci yàlla mu ne nit dana jëf ci liy feeñ ci doomu aadama yi jëfi waa dara desul ci moom mu dee lu dut ab xasabu loo xam ne matu sax meetar ajanaa ngi nii mu ngi nii mu ne téereb dogal ba jiitu ne kii ko war a di la mu jëf-jëfi waa wa inna ahadakum naka kenn ci yéen la yaamalu dana jëf bi amali ahli naari jëfi ñooñ safara xata ma yakunu ba du dox bayna woo diggante moom waaji wala moom ndaw si wa baynaha ak digganteem ak sa ak diggante wa baynaha ak safara illa dhira illa dhira'un dere xasabu fa yasbiqu jiitu alay ci moom alkitaabu téeréeb dogal ba fa yaamalu mus jëf bi amali ahli aljannati jëfi waa aljanna fa yadxuluha mu tàbbi aljanna kon xadis ji rawaahul Buxaari yu maanaa nit ki na bàyyi xel ne li yonent bi wax ne innamal naka la ko waxeeti mbir yi bi xawaatimiha mu ngi ci mujj yi yëf yi mujj mooy mooy moo takk moo tax ñuy ñaan toujours e, mujj gu rafet innamal amalu bi xawaatimi al amal bil xawaatim li ñu xalam mooy li doomu aadama bi di dee ndem yiw la ndem leneen la su doomu bi jëfoon mbaax dundam mm. yépp mm. murtat ci mujj dundam mm. bu dee dem safara lépp yàqu mm-hmm. waaye su doomu aadama newoon ci lu ko neex ci kéeféer yàlla xéewale ko balaa dee dikk mu tuub yàlla tàbbal ko aljanna innama tawbatu ala allahi mm-hmm. lilladina yacmaluuna suua bijahaalatin summa yatuubuuna min qarib fa ulaika yatuubu allahu alayhim wa kaana allahu aliman xakima walaysat altawbatu lilladina yacmaluuna alsayiaati xata ida xadara axadahum almawtu qaala inni tubtu laan wala alladina yamuutuuna wahum kufaar ulaika actadna lahum adaban liman alaana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidin ca qisatu firawna waliyaadu billah kon jëf yi ñu ngi ci mujj yi gannaaw nit ki xamul fu muy mujj nay jëf-jëf ju baax ànd ak ragal walladina yutuuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahumu ila rabbihim rajiun waaye nay jëfi baax it ànd ak yaakaar kenn bu mu jàpp kenn wala tarayanna fi lardi dunaka muminan wala kafiran xata tugayyaba fi lqabri fa inna xitaama lamri anka mugayyabun wa man laysa daa xusrin yaxaafu min almakri waaw góor ga mu ne bul bul bul imaamu Shirazi bul gis mukk ne yaa gën doomu aadama bu mu bu mu mm-hmm. yéeféer la wala jullit la mhm. lu tax parce que mu xamuloo ko mhm. yéeféer bi xamoo fu muy mujj mhm. yow jullit bi it xamoo fooy mujj te képp ku narta perte dafay ragal pexem yàlla fala yaamanu makra allahi illa al qawmu alxaasiruuna coobare yàlla la kenn mënta firi dogalub yàlla dafa sew mm-hmm. kon doomu aadama bi nag mm-hmm. na nekk ci mbaax bu ca nekkee nag mm-hmm. euh, loolu màndarga la ci ne kii ku nar a di la rek ne amug yaakaar te bum tamit daagu bu nee ci leneen màndarga la ne kii ku nar di la ndax fa kullun muyassarun li ma xuliqa la waaye du tax nag ñu ñàkk ci moom yaakaar ñun bum taxit moom it mu ñàkk yaakaar na tuub mm-hmm. bu mu bàyyee boppam seytaane mm-hmm. yëf yi daal mm-hmm. du génn ñeent yi ñeent yooyu nag yàlla xam ko taxut jaam bi toog ne ah, gannaaw yàlla xam na ko rek pare naa déedéet man ki may jàngal bu ma ko bu ma gisee kiy jàng xam naa ki mokkal ak ki mokkalut buñ tëree xam naa ki yoo xam ne mën naa am dana gàkk ak koo xam ne du gàkk xam gi ma ko xam warul tax kii war a góorgóorlu hmm. góorgóorlu hmm. Hmm. te dafa am yoo xam ne yàlla def koo bind ci alawa ji ñuy far am yu bind ci alawa ju ñu dul far allahul mamxuwu ak allahul mahfuuz yamxu llaahu maa yashaaw wa yuthabbit comme xamuñu ci janàll wala nañ def li ñu war a def rek sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya loolu la Cheikh Al Khalifa Aboubacar Sy waxoon rahmatullahi alayhi wa radiya anhu hada wa salla allahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallama yal na yàlla boole ñu ci way texee ci àdduna ak ci àllaaxira wa axiru daxwaana alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillah